jërë ngeen jëf mbokk Sénégal mbokk àdduna mbokk internet yéen ñuy seetaan suñu site bi di info point com tey nag ñàggal leen sa point de presse bi nga xamante ni moom la parti allié yi daal eh, di def eh, ki ko jiite nag kii di El Top moom El Top nag moom mooy eh, coordinateur départemental du PLD ànd soxali keneen ko topp di madame yasin Touré moom nag moo nekk coordinatrice départementale AFP keneen ko topp di Moussa Khadim Mbacké moom Moussa Khadim Mbacké nag moo nekk coordinateur départemental modèle waaye keneen ko si topp di madame Maria Mandia, nak moom responsable des femmes et représentante du coordinateur départemental RP keneen ko topp di monsieur Dame Faye nak moom coordinateur départemental PIT Waye nak keneen ko di madame Seynabou Top nak mom madame Seynabou Top responsable APR la moom nag dafa mujjee jógee ci coalition bu Benno Bokk Yaakaar dem di parti allié yi Mom nag len rek moo ndaxte président nu mo tëggee liste yi neexut surtout nag liste liste bi nga xamanteni moy liste professionnelle waye nak ñi ñii di parti alliés dal dal di mer bu futti wax ne njiitam réew mi ko may ay fan yi bu liste bi nak na japp ne coalition bobu di berno bok Yaakaar dal du am ben ndam fi ci département bu Koungheul ndaxte le ko waral rek mom njiitu réew mi dafa segg parti alliés dal di leen génné ci liste bi carrément bokkun ci li nga xamanteni moy majorité bi ak li nga xamanteni moy professionnel ak suppléant mom nak njiitu réew mi di ni ci dindi li nga xamanteni moy parti ñetti alliés yi ñoom nag gis ni ne am na ki nga xamante ni dugal nañ ko si lool te bu mu commencé politique ci géopolitique bi yàggu dara ñoom nag daal di ne maire bu futti war na njiitum réew mi kii di président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall moom daal lii bu ko defut ñoom parti alliés yi daneen daal di xeex benn Bokk Yaakaar bu fi askan bi duñ fi am dara ci département bu Koungheul lu si des nag ñu bàyyi la ngeen seetaan ko suñu site bii di firi info point com. waa département wu euh, Koungheul man la El Top di coordonnateur départemental bu PLD ànd soxali bu Omar Sarr ministre de des mines asalaamaaleykum waa région Kaffrine asalaamaaleykum waa euh, Sénégal euh, man maa woote point de presse bi samay naataango parti allié ñëw fekk si ma jàppale ma

dans le pays vous PIT mon coordonnateur départemental Yacine la coordonnatrice du de l'AFP départemental et que y Mariama Ndiaye euh, Baram. RP nous aussi représentés parce que nous présidente euh, des femmes de son parti ak nouveaux Top nous rek moo si le parti allié moom APR mais nous ñëw spontanément pour euh, jàpp pour combat, nous combat mu ñëw ici, ici donc muy lu rafet. Fini ñi fi parti Il y a le modèle le PIT.

damay commencé ak né tay perte suñu doon def élection yi ni tay ni ni ni ni benn boko yakar yaakaar perte donc ça veut dire que suñu taxawul si li am 31 juillet yaakaar né euh dinañ wax leneen lu benn boko yakar mo euh, mo gagner élection yi lu tax d'abord euh, sooy def euh, choix amul ben choix bo xam ñepp ñëpp ci d'accord fi El Hadj lañu jël ak Fanta bruit wi génnoon na contestation amna parce que ñepp mënuñ ah, d'accord loolu c'est normal mais dama yaakaar bu féké da nga investir investissement yoyu di indi problème da nga wara ñëk def kay. mooy jéem a fexe noo réglé difficulté yooyu ndekete ndekete ñoom dugal nañ leneen lu gën a garaaw euh, lu lu lu lu gën a garaaw xam ne nit ñi ñi nga xam ne ànduñu ak Alaaji Mor Dieng ñu ngi ko doon wax ñun parti allié lañu dañuy plié wu si lii benn boo ko yaakaar wax mais nag am nañ nag droit ñun kooku ça nous Nous nous la engagé le département parce que suñu leader nationaux ñom seen gox mo leen régler ñoo leen Nous régler mënu régler gox bëgg régler fi nous ñun ñoo xam vivre kon man japp nous 22 candidats ministre Ndeye Salidien recevoir candidats candidats yoy si biir investiture bi indi ko gis la suppléante Abissou Sali bi liste officielle bi génnee ñu gis ne am ko tudd abissaw amul ben responsable je le dis bu baax déglu na wa Sénégal yéen laa bëgg ngeen déglu ma amul ben responsable APR département bi APR bu xam abissaw amul ben responsable allié bu xam abissaw société bi xam société civile bi xamuñ abissaw département euh, commune bi mu dëkk sax ñu ñu bari xamuñ ko fa waye yéen nu ñu mun a ku mel nonu lool kay moy manque de respect mënul passer loolu il semblerait dégg naa ne maire wu Saly moo ko jël jël dossier fekk nañu clôturer lépp ba pare parce que ñun xamante nañu yóbbu ko dakaar jox ko Ablaye Sow Ablaye Sow Ablaye pare ne investiture boobu imposé ko ci kaw ñu investir la daam la comme euh, suppléante manque de respect mënul passe loolu

Il y avait la dame Aïcha au conseil des collectivités territoriales. Il y avait Neneli. Oui, comme nous avons déposé une candidature officiellement, nous Si je dis ça, nous disons que comme nous avons fait femme, nous nous avons femme responsable femme responsable nous disons nous parti et là président de la république la ñuy waxal parce que ñun ay affaire responsable yi yii ñu wax ak ñom parce que ñom responsable lañ ñun responsable lañ wa APR moo tax may wax de té ñun ñoo leen gën rek responsable parce que ñun amuñu ben ndomb tang ba paré té lu xew ñoo fay njëkk donc ñu disons nañ ñu clarifier lu tax euh, le ministre Abdoulaye Sirissou am sañ-sañ di dugg suñu département bay parrainer ben investiture bu xamné ne ki mu ab ki mu ki mu parrainer du membre de ben bokk yakar manam du membre parti APR du membre parti si euh, si euh, si yeneen parti allié ken xamuko donc yabaté mënul passé loolu mais nak li tax ñun nous allons voter contre si waxuñu ñu leer président lay waxal dé bu féké waxuñu ñu leer na dem def enquête mom xam li ñu wax né maire salila comme ça sax su ko defee man mun naa ko sax man bal parce que il est jeune il est insouciant euh, ensuite politique bi xamul ci dara mom day day ñëw rek déposer ay acte mais yaakaar naa ne bu fekkee dafay dafa ci xale yi lay sow la bok lay sow il est assez mûr pour lui dire que mais ki kan la wala lay sow may respect bok wa APR wa waxuma sax ñun mais wa APR

façon bu xamné amul ben responsable APR bu koy jappalé président de la république man personnellement Elage Top limay may wax ni responsable yi ñu may dégg ni may président de la république dans les règles sociaux ak un peu partout amul ben responsable au niveau national bu koy def je prends à témoin la presse je prends à témoin la jeunesse je prends à témoin le département ñun nañ ñu jox li xamné mom lañ mérité nous avons besoin gis nga sooy def politique dang ko def pour ces populations, mais dang ko def pour yow aussi mënuñ fi que depuis 2011 le plus petit vélo amuñ ko c'est pas juste mënuñ nek di jappalé ñu xamné considéré wuñ ñu y a aucun euh, responsable APR yi amuñ ben respect si ñun si il faut juste élection am ñu ñëw vers vers euh, vers nous amul dara li ñuy proposer ko mais pour aller voir le président de la République ñaata yon la ay responsable APR dem gis président de la république sans and ak ñun duñ and ak ken té duñ dem ba yegg fofu né parti allié kat suñu département am nañ njëriñ utal leen li ak li ak li ak li ça il faut que le président de la république cherche une solution par rapport à ça ou bien nous allons voter contre man day très sincèrement man si man lay commencer man waaw ma ngi ñëw si yéen dégg mu ne ñun ñun ñëpp nañ ko def mais man lay njëkkee que personne ne vienne me dire il faut se plier buma kenn wax né aussi, nous euh, nu mu tuddati instruction parti parce que man li daj parti bi mënu ko régler man ma xam limay daj fi ñi ñoo xam li ñuy daj li la wax ni non la ñuy ça ça n'engage pas le parti ça nous engage en tant que responsable man ça m'engage en tant que responsable ça n'engage pas le parti parce que parti bi pour mom nañ dem and ak ñom wote ñoo bañ man de ma bañ te ñi aussi ñom ñoo bañ kon que Macky ne s'attendent pas bu yaakaar ne dañuy ñëw jox wax ay xaalis comme ay xar jënd ñu man ça ne marche pas te li ma wax nii man non, lay euh, doxalee donc je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ça. non du ko gagné am na leneen lu tax du ko mën gagné mais noo mën a comprendre yow président de la République wax nit ne ko yow parrainage bi yaa ko yor ça va implicitement moy yow région bi yaa ko yor waaye yow partout yaa ngi installé ay foyer de tension Ablaye Sow fu amul fenn fay dem ci région bi ñooñu nag yeneen département yi ne na jël seen responsabilité mais en tout cas ñun fille en tant que en tant que euh, parti allié te jeunesse bi même la jeunesse républicaine la jeunesse même la jeunesse de la kontaan nañu parce que dañ leen tooxal bokk pour leen ci dara nan nga mën comprendre ne dafa bëgg lu baax pour président de la république bu il est intelligent hein il est très intelligent je ne conteste pas sa nomination en tant que ministre il le mérite mais politiquement ah non il doit aller apprendre beaucoup de choses parce que bu fekkee nit ki yow nga ne politique ngay def bu président de la république te yow foo dem rek yaa ngi xeex nit pour indi canne. moom li ko moy mooy su yegsee si département bi moy essayer bolé ñep Ablaye Sow s'il était intelligent dina dugg si kaw Abi Abi Sow bi vous vous question de ne école moom qu'il s'explique qu'il nous dise que ce n'est pas lui et que l'église ou bien le président de la République fasse une enquête par rapport à ça parce que nous avons des information on va voter contre Il du moins, amul Ben maire sortant bu ñu considéré je vous dire pourquoi le Ben Boko Yakar va maire sortant il nekk yëpp fàtte nañ mais nous, vous le faites, am ils sont représentatifs ils sont très représentatifs parce que am na 100 points 200 points mais les maires sortants les présidents de conseils départementaux sortants mais nous, nous gën nous may Nous, nous may sax da comprendre ñu nous ñooñu ne dañuy gagné ay élection benn ñaareel ba mooy nan lañ mën a euh, Koungheul lay jël man suma kaa lay jël pour te dire que suñu responsable responsables. ils ne sont responsables que pour eux Nous, xam nga def nañ élection locale passé na nekk nañ seen xam nga léegi léegi ban si avons si luñ nekk léegi may jiite élection yi

donc je dis d'accord. D'accord. alors vous pouvez gagner à les euh, législatives